wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla jul seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare te di leen baalu di leen dokkeel ci weeru tëdd bi nga xam ne suñu borom subhaanahu wa may na may nañu ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim di ko ñaan mu may nu ñu àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin fas yéene àndaat ak yéen rek ci jataay yu am solo yi nga xam ne muassasatul wafa'i bi xuquqil iman moo koy ànd ak yéen ci diiru weeru koor gi ci béréb bu tedd bii nii ci ndigalul ki nga xam ne moo fi toog toogaayu borom Daaru Muxti muy Serigne Abbas ñoo ànd ko ak mbokk yi nga xamante ne liggéeyal suñu borom subhaanahu wa taala ci wàllu xam-xam ci xamlu ko ak di ko xamle ak di ko tasaare rekk moo leen tax a jóg di ci sàkku ngërëmul suñu borom ngërëm loolu yàlla nañ ko yàlla defal ñun ñëpp. ñu fas yéene tàmbuli jotaay bi tey. di bis bi nga xamante ne moo njëkk ci weer wi fas yéene ci ànd ak boroom xam-xam yi nga xamante ne ñoom ñëpp tamit seen yéene mooy tasaare xam-xam ñu fas yéene ànd ak ñun ci weeru koor yëpp rek ci ay thèmes yu wuute thèmes yoo xamante ne jàpp nañ ne société bi yittewoo na ko kenn ku nekk la nga ci xam te la nga jàpp ne mooy jëriñ société bi nga indi ko ñu bokk ko ngir fas yéene ñu bokk ko jëriñoo. kon bala ñuy jox suñu gan gi nga xamante ne moom la ñu fas yéene dal tey niñ ko baaxoo defe génn rek at mu nekk bu ñuy tàmbuli jataay bii nii euh, sëriñ Basiiru moom sëriñ sëriñ Basiiru Anta moom borom daalu Muxti mooy ki nga xamante ne moo ñu baaxoo euh, tijjil jataay bi ñaanal ñu su ko defee ñu doon soobu ci liggéey bi ñu xam ne tamit at yi yëpp suñ jëwriñ ci liggéey bi euh, muy sëriñ Abdou Samad mu suñ mu daw Balla mooy ki nga xamante ne moo fi toog toogaayu sëriñ Basiir moomu noonu moom la yebal su ko defee mu yëkkati ay kàddu ci turam ci turu xalifa bi ci turu njabootu borom daal bi bu moxti gépp su ko defee tàmbali ñu tàmbali tàmbali jataay bi ñu tàmbali liggéey bi kon ci njàlbeen dañu jox sëriñ Abdou Samane Mbacké su ko defee mu indi kàddu yi nga xamante ne moo bàyyi ci sëriñ bi bàyyi ko ci njaboot gi jëm ci ñi nga xamante ne ñooy saytu liggéey bii nii mbokki taalibe bi yëpp. ci noppee tamit danañ jox sëriñ Mouhamad Mbacké mi nga xam ne moo féetewoo wàllu communication ci muassasatul Wafa su ko defee moom dana yëkkati ay kàddu ci euh, liggéey bi nga xamante ne moom lañ ko dénk. Euh, ci muassasa bi su ko defee nag ñu jox suñu gan yi nga xamante ne moom la ñu fas yéene dalal mu fas yéene ñoo baaxee tomb bi nga xamante ne moom la fas yéene ànd ak ñun te muy tomb bu am solo incha allah danañ ñëw léegi kon li ñu def rek moom mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ Abdou Samane Mbacke yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim sallallahu ala sayyidina wa sallama tasliman asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñoo ngi nuyu mbokki jullit yëpp ñoo ngi siyaare mbokki yi fi teew yëpp ñu ngi dalal jàmm suñ kan gi nga xam moo teew tey ci jotaay bi ko ubbi kàddu yi may wax kàddu yi sëñ bas la dañ basi at tañam moo fi waroon teew biir jotaay bi waaye yàlla ma dogal benn doo nga am liggéey tey ñu koy denc dem ca moo tax ñu bal ma tegal ko fi kàddu yoo ngi jóge ci sëñ Bas jóge ci sëñ Abbas mi nekk borom daaru tey di sant suñu borom subhaanahu wa taala mi ñu baaxe woon daaw ñu fekke woon ko ñu daam fukki weer ñaar mu baaxaat ñu fekk ñu fekkewaat ko lu bari moom na fay xew luy dox suñu diggante ak man koo teew wala man ko fekke suñu borom fa fa fa fangal nañ ko ñu ngi koy sant bu baax gën a dolli cant ak ngërëm ci turu sëriñ bi jëm ci alwafa ci seen liggéey bu rëy bi ñu def damay wax toujours ne lii sëñ Tuubaa waxoon borom daarum si ñu muy jàngale alxuraan dem reere ñu fekk ñu fay taal bi mu ñu wax ko borom Tuubaa ne ko bii ma demee ci kër gi di xéwlu ma ñu fekk ñu fay taal daf ko ne demal taalal ko te ngeen jàng ndax dañ ko dana tàkku fu mu faye ma jàppar kon taal loolee si tubaab mooy jotaay yi ndax bañ ko tàmbalee depuis 2007 ba léegi yàgg na fukki at mat na ko weeru yàlla ñu koy def boo ko kël ki ne bu baax war naa toll ci ñaar téeméeri conférence ak juróom-ñeent fukk yoo xam ne ay thèmes yu wuute lay doon borom xam-xam yu wuute bay wax ne loo ko defoon ko defoon ci kaggu def ko ci benn barab mën mën si jariñ kon njàngal moom Sëriñ Tuubaa joxoon borom daal mu def ko ne ko jox ko ndigal moo koy def loolu mooy dox ba nëgal may wax ne lii moom manaa ndimbalu si ndimbalu Sëriñ Tuubaa ngi ci ndimbalu Sëriñ Tuubaa ngi ci ndax lii uh, def def ki dafa jafe weeru yàlla ni mu yaatoo ni mu bare bët bu set mu indi kenn mu def waxtaan ba weer wi dee loolu lu jafe la waaye dama am na barab yoo xam ne weer wi ñeenti yoon conférence lañ ñeenti conférence lañ cee def waaye ñoom ñeenti yooyu sax dañ dafa wëta yéen ngeen def weeru weeru kor ba weeru jeex bu bisee ngeen def conférence bokkut ak ji loolu dama jàpp ne ndimbalu Sëriñ Tuubaa ci biir waaye du du neen li yàlla dam naa ne am na lu ci suñ bi def lii itam ñëpp ci war a jàpp ndax liggéey bu Sëriñ Tuubaa la liggéey bu yonent bi la liggéey bu borom daru la day wax ne <coughs> nit bu fekkee dafay xeex yi nga ñëw ne ko damay ànd ak ci xeex bi dangaa war a ngànnaay yoo ci ngànnaay lam yor di ko xeex nga yor ko waaye bu fekkee dangaa ñu ànd ak moom ci soldaar yi te yoroo ngànnaay lam ngànnaay yoo day mel ko sot ndax dañ liimaale ci limu soldaar yi te yoroo ngànnaay loo xeex loolu mooy li ngeen def suñ moom waxal boppam ne man xam-xam ak ragal yàlla ci laay xeex ak samay noonu kon xam-xam mooy ngànnaay suñ tubaab di xeexee jihaad ji suñ tubaab di da koy def ba day tukki du fi ndax ignorance du fi jóge kàccoor fi jóge kon nag jihaad yooyu ku ci bëgg a bokk faw nga xamle faw nga xamlu faw nga xamle yéen nag loolu yéen ngi ci ba ngeen jàngee ba xam yëmu leen ci da ngeen jóg ngir xamal ñu xamut loolu mooy liggéey Sëriñ Tuubaa loolu Sëriñ Tuubaa sakku ñëpp mooy def kon leen war yéen ci ci turu Sëriñ Abbas ngi leen sant di xamal ne mi ngi koy ak yéen fu ngeen nekk ma nga ca nekk ma nga ca fu ngeen toll bi mu seen wet di soññ waa dëkk bi ñu ñëw di teew si ndax ki nga xam ne sëñ moom la ñu indi ay ay soxlaam la bàyyi Euh, jóge fa sori ñëw di def si waxtaan bu sañoon tey wax dëgg fa ñëw di ko teewe te dañu wax ne al mustami sharikul xaay wax ki koy dégg ñoo ko ñoo ko leen di fay bu fekkee dafa ñëw di wax lu baax ku toog di ko déglu bu ñu ko fayee lu baax fayee lu baax kon ñëw déglu waxtaan wi lu ci am solo doon kon ñu ngi ndokkeel ñëpp ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm dañ ko tamal bisimilah maram àggale ko ci allahuma rahim sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bisimilah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa mawlana muhammadin wa man wala asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ci turu mu asasatu wafa bi xuquqil iman noo ngi leen di nuyu noo ngi leen di ziyaara noo ngi leen di ndokkeel ci weer wu tedd wi te ziyaara yi ñu ciy jiital Cheikh Seydil Makhtar di ñaan sunu boroom yàggal ko fi te wéral ko di ko ñaanal sëriñ Abbas Mbakke xalifatu Cheikh Ibrahima eh, ak mbooleem jabootu boroom Daaru Muxti gépp di nuyu jataay bi di ko teg ci kilifa jataay bi Cheikh Abdou Samad di ko ziyaara bu baax a baax di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi teew ak ñi nga xam ne ñi ngi ñuy dégg ak fu ñu mën a déggee ci turu Al Wafa noo ngi leen di ndokkeel ci weeru tedd wi di wax ne rek ni ko Al baaxoo di defee boobaak léegi mën na fukki at ak benn di amal waxtaani diine ak lépp loo xam ne dafa soxal askan wi di ci dalal ay boroomi xam-xam yoo xam ne dañuy rafet ñoom jortu xam ci ñoom ak xam ñu dalal leen tànnal leen ab tomb boo xam ne jàpp nañ ne dana amal njariñ jullit ñépp amal njariñ askan wépp noonu lañ ko baaxoo di defee xanaa ba ciy sor rek ñu fàttali benn tomb bu am solo boo xam ne assasa bi da koy faral di wax te mooy li jëm ci waxtaan yi nga xam ne moo fi rot nga xam ne li Sayyidina Shuayb bi waxoon rek ne in uridu illa al islaaha mastata'tu noonu la Al Wafa di doxee su ko defee lépp loo xam ne xam-xam la amal na njariñ askan wi dañ koy taataan fii te jàpp ñu it ne ñiñ fi dalal dana am lu jóge ci ñoom loo xam ne du dëppook barab bi waaye mu asasa bi di wax rek ne bu loolu amoon itam moom dañuy jàpp ne rek hmm, kooko rek la soxal xalaat yi nga xam ne tamit dana fi dana fi rote eh, nekkul ne rek dafay soxal mu asasa bi bi darura maanaam daal dañuy dalal boroom xam-xam boo xam ne am nañ ci moom yaakaar rafet ci moom njort ngir mu ñëw jariñu ci ab xam-xamam su ko defee lépp loo xam ne dëppawut ak barab bi loolu ñu dañuy jàpp ne njuumte lay doon waaye du bëgg-bëggu mu asas wafa wafaay bi xuqul bu loolu weesoo ñuy jël ay kàddu yu cant di ko jëmale ci mboolem ñi nga xam ne ci lu jege wala ci lu sori jàpp nañ ci liggéey bi ba nga xam ne niñ ko bëggee danañ ko amee noonu rawat na sunu mbokk yi ñi nga xam ne ñooy jàllale waxtaan wi ci jotlikaay yépp muy rajo yi nekk département bu Mbacké ak lenn ci ay télévision yoo xam yoo xam ne danañ leen tudd balaa xëy na balaa jataay ba yëkkatiku Euh, muy ay ay rajo ak ak ay télévision yoo xam ne danañ jot li waxtaan wi ba mën a egg fépp ci àdduna bi euh, bu loolu weesoo mu asat wafa bi xuququl iman mi ngi yeesal ak jaayanteem ci fas yéenee liggéeyal xam-xam ndax li ko tax a jóg mooy tasaare xam-xam ak njàngaleem lislaam ci lépp loo xam ne amal na njariñ askan wi daanaka ni ko Cheikh Abdou Samad waxee léegi yóbbaale na kàddug euh, kuréel gi ndax sëriñ bu mag bi ci xam-xam ak ragal yàlla la doon jàmmaarloog ay noonam ñun tam ci wàll googu rek lañ nekk te mooy fexe ba xam-xam ak diine tax mën a tasaaroo fépp ci askan wi fépp ci àdduna bi kon aloofa mi ngi yeesal jaayante googu nga xam ne dafa jàpp ne masuuliya la bu mu gàll buñ gàll ci loosam mu di ci yaatal nag di ubbi ay buntam nga xam ne wasit wafa tëjul ay buntam ci benn xalaat boo xam ne day jëmale kanam njàngaleem xam-xam ak lislaam ci réew ubbi na ay buntam fas yéene jëflanteek mbooleem kuréel yi nga xam ne dañuy yëngu ci lu mel nii ci wàllu xam-xam ak tasaare ko loolu moo sofa mi ngi koy mi ngi koy yesal di sant mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi teew ak ñi nga xam ne danañ fexe ba déglu ko tey déglu gi wax dëgg yàlla jàppandi na tax mbooleem rajo yu nekk département Mbacké danañ ko jàllale danañ tudd seeni tur balaa xëy na jataay bee yëkkatiku bu dee télévision itam yi nga xam ne euh, maanaam confirmé nañ ne danañ ko jàllale bokk na ci Touba TV dana ko jàllale ci waxtu wi nga xam ne mooy waxtu wi nii maanaam diggante 17h ba 18 làmp itam dana ko jàllale Mourchid TV moom itamit dana ko jàllale ñi ko bëgg a jàpp tamit ci wàllu internet bi tamit jombul balaa jotaay ba yëkkatiku danañu wax ni ñuy def ba mën koo seetaan ci wàllu internet bi loolu daanaka ci gàttal mooy kàddu yi nga xam ne bëggoon nañ koo yëkkati di dalal sunu gan gi ak mboolem gan yi nga xam ne nar lañ leen a dalal di ñaan sunu borom mu kàttan leen ba li ñu bëgg a eggale ñu eggale ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Mouhamad Mbacke ci kàddu yu am yi nga xamante ni yëkkati nga ko di yëkkati ko ci turu turu kuréelu Muassasatul Wafa gépp xam naa kon li ñu def rek mooy dañuy dalal suñu gan gi nga xam ne. moom la ñu fas yéene ànd ak tey àndal tey ci waxtaan wu am solo bi mu fas yéene ànd ak ñun incha allah te mooy sëriñ Cheikh gay ñu gën koo xam ci Serigne Cheikh Gaye al awsat mu fas yéene ànd ak ñun ci waxtaan wu am solo boo xamante ni mi ngi ko jëmale ci wàllu xol kon bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy tënk rek aslëf ci ay yëngutoom mu jànge alxuraanul karim ci kër sëriñ Cheikh Habibul Mbacke al imam mottalee alxuraan ji ci kër sëriñ Saalihu Mbacke ba tey tamit foofu ci biir kër sëriñ Saalihu mbakke ci daara yi nga xamante ne sëriñ Saalihu moo ko sos foofu la tàmbalee njàngum xam-xamam lu jëm ci wàllu diine mu tàmbalee ko ci sëriñ Habib Diop moom sëriñ Mouhamadou Amine Diop Dagana moom sëriñ Mouhamadou Amine Diop. Euh, foofu la tàmbulee njàngum xam-xamam ba tey tamit ci ëttub sëriñ Saalihu Mbàkke rek ci la mottalee ak njàngum xam-xamam ba lépp loo xamante ne euh, war na koo xam ci wàllu diin rek foofu la ko xamloo waaye bi mu xamloo ba noppi tamit génnul kaadaru xamlu ak xamle ndax daara la yor joo xamante ne daf ciy jàngale alxuraanu karim di fa jàngale tamit wàllu xam-xam ci biir jàngale moomu tamit yemul ci biir daara ji rek waaye euh, taalif na ay téere yoo xamante ne da ci xamle wàllu am solo ci wàllu xam mu jëm ci wàllu miraas téere taalif na ci benn téere boo xamante ne euh, wàllu googu la ciy xamle ba tey tamit taalif na benn téere boo xamante ne mi ngi ko jëmale ci wàllu aj màkk am na ay yeneen bind yu baree bari yoo xamante ne bind na ko ci ay fànn yu wuute lépp rek ngir li ko yàlla baaxe ci wàllu xam-xam mu fas yéene ko bokk ak mbokki jullitam kon loolu liggéey bu am solo boo xamante ne sëriñ Cheikh Gueye mii ci loolu la yëngatu li nga xam ne moom la fas yéene ànd ak ñu tey nag waxtaane ko mooy lu jëm ci wàllu xol wàllu xol euh, ci njàlbeen incha allah ñu xamal bu ñu waxee xol lan lañ ci jublu danañu xamal tamit jagle yi nga xamante ne xol am na ko ak li nga xamante ne mooy dundal xol ak li nga xamante ne moo koy rey dana ñëw ñu ñun tuuti allah ci li nga xamante ne mën naa sabab xol feebar waaye nag lépp lu feebar rek warees na ko mën a saafara kon incha allah danañu indil li nga xamante ne bu xel feebaree. buñ ko defee rek yàlla mën naa def feebar xol boobu saafaraw kon ci tënk lii mooy tomb yi nga xamante ne fas yéen fas yéene na ci ànd ak ñun ci biir jataay bu am solo bii nga xamante ne moom la fas yéene ànd ak ñun tey allah kon bala ñu ko jox kàddu gi rek ñu fàttali mbokki jullit ne kon tey jii ci gaaw bi lañu ñu tàmbali waxtaan yi suba ci dibeer ji incha allah al oustaz Abdoulahi Diop Ndar muy sëriñ Abdoulahi Diop Ndar moom lañuy fas yéene àndal ci asarul mazhabul maliki yi fi waxdatul mujtama as sénégal yi muy euh, ngirum imam malik jeexital gi nga xamante ne am na ko ci bennale euh, njabootuk sénégal bu dee ci altine bi incha allah ñu fas yéene ànd ak sëriñ Mbàkke Abdourahman moom tamit mu fas yéene ànd ak ñun ci ahkaamu diya fil islam muy attay diya ci lislaam bëgg nañu bokk ak ñun jataay bi te fas yéene ko ànd ak ñun ci rajo yi ak télévision bi ak internet bi su ko defee incha ñëw ci program boobu asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa saxbihi wa xayri xadimihi wa ummatihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullah maa ngi nuyoo di ndokkeele di ziyaare di tàmbale yooyu ma tudd ci kilifa kilifa ëtt bi di sëriñ Abbaas di ko nuyu bu baax di ko ndokkeel di ko ñaanal tawfiq ak sutura yàlla na ko sama borom defal te boole ko njaboot gi yépp euh, fu kilifa nekkit ci biir réew mi ne ci kanamu njaboot yi yàlla na ko sama gën a do sama borom gën a dollee taxaw te dolli ko sutura te boole ko njaboot ga weer wi ñu dugg it sa borom mi nu dimbali wommat nu ba indi nu ci yàlla nu dollee tawféexal ba may nu ci ay taxawaay yu mu gërëm te sant ko te it mu fulal nu ko te ñan ko daan bokkal te ñi jiitu ñu it sa borom yeesal yërmandeem ak njëggalam ci ñoom xanaa kon ñu tàmbali liggéey boo xam ni sant nañ yàlla lool ci boole gi ñu ci boole bokkuñ ci nag ngir ak man mm, waaye insha allahu taala lottu ga la fis fisit ñu ñu ñu jéem tey seenu ndimbal ak ni ko sëriñ bi waxee ñu bëgg a waxtaane xol muy loo xam ne bu neex xol lañuy wax man ngaa dajale mbooloo te xëy na kenn ku ne am ca yoon wu muy jaar wu bokkut ak wa ka yees jaar ngir lan ngir yaatu xol moo indi loolu man nag kon dafa mel ni rek xëy na genn wet laa jaar keneen mën a jaar geneen wet gi ma tànn ngir jaar ci nag dama ko tënk ci ay tomb ni ko sëriñ bi waaye gannaaw wax na tomb yi daanaka jërul baamuwaat waaye kon ñu tàmmulee ci muqaddima bi nga xam ne moom la ñu wutal tomb yooyu muqaddima bi daal li ma ci bëgg tënk ni mooy xol moom benn ñu ni wala boog benn mu set wala mu taq xëy na ne ci diggante bi yombut set mbaa taq yaar yi dana jëfe benn waaye nag du dañu naan kër kër mi ngi war kib xolom taq waaye ki seetle kër kër wàcc na ko tekkiwul loolu ni kër kër waree ki seetleegul ni la kër kër waree ki seetle eh, te loolu lu yomba xam la mën nañu koo jële ci lu nu Ahmadul Xadim misaal te ñépp mën koo jëriñoo dafa waxoon ni ku am ayib joo xam ni suñ ko nettalee fi mbooloo nga rus fexe ba tàggoog ayib joojee doy na sëkk ab liggéey kon ki seetluwut moom xam na wàllam loolu la moom ci wax jooju waaye sëriñ bi dajaa tegaatoo nit nii ayib jooju day kum ak seegut fi yow fexe ñag sa bopp ba du yegsi fi yow ba mukk mu ni ba tey loolu doy na sëkk ab liggéey kon ki taqale war naa kër-kër yi waaye ci seetle it war naa kër-kër yi man nag ci sama xalaat bu suufe lool ñaar ñooñu dama leen di jox misaalum ñaar ñu ànd yoru njëg ni dañoo bëgg fas wuñ bayee wuñ liggéeyee ngir taxaw seen bopp ak mën a taxaw seenu njaboot ca fan leen war a taxawoo ñaari ñooñu ànd yor njëg saa yu yuñ xëyee ñoo bokk itte te mooy dem ci daral lu ma yeeg ñu demee noonu ngir am waaye bu saa borom dogaloon kenn ki am ki am ba léegi kër kër wàcc gu ko ba léegi kër kër wàcc ko ndax ki am dafa am beneen wazifa bu daan waat ci kawam te mooy am naa fas sëñu ma koo yeew te wutiwuma ma ab xont sëñu ma mu mar du ma ko wutali am ndox sëñuma tëdd ba guddi dégg mu ngexal te jóguma xool ba xam lu mu doon ki amu fa sëñut loolu dana toggoo coono wutib xont ak yee ci aju yépp ak sax nelaw yu naqari ndax ni jamono bindoo nga xam ne léeg nga dégg ku sant jaay mi ni faw nga jóg xool ba xam lu mu doon loolu lépp warteefu ki am la waaye su ñuy woon nag warteefu da koy teg fi suuf moom boo moytul ko amagul mën na ko gënu demin ndax moom njëgam dem na te li wuutoon njëg yi buñ ko saytuwut bu demee kon moom mm, ka amagun mën na ko gënu demin kon loolu mooy warteefu kin ni xolam sedd na moo tolloo ki am Sëñ Tuubaa mu baax mi nga xam ne nag lu nekk rek ci misaal yu rafet yi ma nañu ko cay jaaree moom jàngale na foofu lu am solo ci nit bu wutee ba am na xam ne am na kër kër ju ca toppat mooy lim nuy leeral ci mawaahibu naafic bi di wax ni lahum tidaaxi baada najaaxi inda sabaaxi wa fi lmasaai maa ngi def imtidaax ci sallallahu alayhi wa sallam inda sabaaxi wa fi lmasaa te fekk na baada najaax la wut naa ba am waaye maa ngi nekkaat ci geneen kurkur te mooy fexe saytu li ma am ba du ma rëcc kon Sëñ Tuubaa wone na ni nit kii bu wutee ba am am na jom ju ko desewaat te mooy jom yi saytu lim am ba mu dolli ko te bañ su ma doon euh, wax ni sëñ bi jàngale loolu ni mu ko jàngalee bind ko noonu lañ ko gisee ndax bi mu nee yee naa leen nabbahatu ko man day wax ni kum googu ku dëkk Sénégal ci nga bokk maanaam yéena leen yéen ñëpp ci ni balaa kenn am dara da sonn waaw bi sëñ bi waxee ni yéenaa leen ci balaa kenn am dara daa sonn te nun gëm nañ ndax ba la weesoo daa toog déedéet beneen coono toppaat na ca boo xam ni ku ko fekk muy sonn da naan xanaa kii ëmmagut waaw kii moom xanaa daa ëmmagut moo tax mu sonn nii ku ne xam na ni bi mu jógee Mauritanie ñëw ca yéen Jolof coono ba fa am danga naan xanaa sax amutoon ca la ko jiitu woon fala naar ba doon waxee naan yaa rabbana ya dal bilaadi ya muxiit xul baynana wa bayna abdika ma xeet loolu ku ne xam na ni lu jégg day ngoog ci ab coono kon sunu doon ub buntub ki seddle te mooy ki am fas wi dañuy wax rekk ni jenn farata daal la am na ko xam mooy muraqaba mooy na xam ni gannaaw seetle na kon moom yéeg na ba àgg ca njobbaxtan ku ne ci njobbaxtan tan war a bàyyi xel ni ci njobbaxtan la ne nekkatoo ci dat nekkatoo ci bànqaas ci ay car yu sew nga ne bàyyil xel ni fii laajut nelaw laajut baj yi laajut dara lu du yottu yaru rek la ya leneen loo def daanu ñëw loolu nag sëñ bay jaxate mu baax ma mën nañ ko jéggi ci bayitam wu rafet ci ku jiitu war ngaa góorgóorlu li mu wax ni moytul ma ab jëll yow muy jiitu ngir ku fi raw gën fee réyub jëll waa ji yàlla boo daanu moo tax ñu wax ni laa bu ñu waxee ni bàkkaar day doon bu ndaw mu yàgg mu xëy xëy di bu mag ku ñuy roy a tax ku ñuy roy bu defoon lu tuuti lu tuuti tuuti dañ koy yéegal ca yu mag ya laa saxirata maa al isra wala kabirata maa al istigfaar su ma ñëwee ci ki amagut fas te mooy ki xolom setegut kooku it warteefam lenn la mooy mu xalaat ci suubaat yi nga xam ni moo koy dab ci bu amut fas te mooy bu xolom setut lam koy jural mu xalaat ci loolu euh, mu xam ni bu amul fas mu bayee bu nawet jàllee lu ci topp yalwaani yalwaan nag yàlla nay ci àddina ndax àddina moom am na yalwaan am na saraxe waaye àllaaxira am na yalwaan waaye amul saraxe kon ki war a wut lu mu liggéeyee wutu ko te mooy ki war a seetal xolom seetalu ko la ko cay fekk mooy nawet wàcc na amutul dund mu ni naa yelwaani waaye nag dama ni na fekk muy ci àddina àddina moom danga nga gis kuy yelwaan da nga gis kuy saraxe àllaaxira nag am na yelwaan waaye amul saraxe euh, alquran moonu wax loolu moonu leeral loo xam ne xame nañ ci ni ëllëg am na yelwaan waaye amul sarax te ni mu ko waxee dafa daw yaram ndax dafa am koo xam ni ëllëg bu dee yelwaan baat yi muy jaar pour yelwaan dafa mel ni nopp suñu ko dégg lu dul da yërëm ba sarax ko te moo na nopp da koy dégg ba noppi mel ni digg ko ñaari bay ki muy yelwaan mu di ko gàntu yi day mel ni xel warutoon a nangu mu gàntu ko ngir kim doon ci moom ak fa mu ko féete woon muy lu doy waar suñu firee loolu mooy lan mooy ëllëg ndey dana daje ak doomam yowmal qiyaam ni ko yaa bunay alam yakun batni laka wiaa mu ni ko ah kay sama biir bi ndax du woon fu la yàlla dëkkaloon muy sa muy sa néeg nit ñi sañ lu ne lu ma sañut jigéen bu tollee foofu ah, am na yum sañut ki dara ci it moom mën naa jaaxaan man naa tëdde ni ko sob waaye soxna bu tollee ci wet googu du nu ko neex tëdde waaw ah, yu bari da koy moytu ngir li ne ci biiram mu ni ko xanaa du may koo ci yow mu ni ko ah kay mu ni ko xanaa sama ween wii du woon ndaalu sedd loo xam ne saa yow maree ñëw naan si mu ni ko ah kay mu ni ko waaw sama pooj bii xanaa du woon mbàjj mu nooy moo xam ni saa yow bëggee nelaw ñëw nelaw te kenn du la xatal mu ni ko ah kay mu ni ko ah damay yalwaan nag yalwaan gi mooy asqalatni dunubi fa taxamala anni minha damban waaxidan li ma gàddu ci bàkkaar ëpp na kon dimbilee ma rek jëlal ma ci benn benn waxuma ñaar waxuma ñett doom ji ni ko ah ilayka anni fa ana mashghul bi nafsi anki doom ji ni ko sikki ma sikki ma lakkandoo loolu li muy nur fii muy wax yow mënuma ko xoolal ki ñaan ak kim ñaan ndax gant waroon na am am na yeneen yu yelwaan de unzuru naqtabis min nuurikum loolu yelwaan la waaye ñun leen déedéet kon àllaaxira amul yel am na yelwaan waaye amul saraxe kon ki sédleegut na xam ni mooy ki amut fas bu góorgóorluwul ba wut ba liggéey tumuraanke dana ñëw Euh, li ma doon wax nag mooy li alquran di wax ni wa in tad'u musqala ila ximliha la yuxmal minhu shay walaw kaana da qurbe waaw foofu moom lu mel noonu kenn du ko yanul kenn gannaaw nag doom nangu lu ko ndey kon ku ko mën a amaat ci keneen bu ko defee it ci muxaddima bi xanaa ma tëje ko di wax ni ki yàlla wax ni sab xol danga ko war a setal li ko yàlla sant dara ci tooñ amu ci ndax moom li ni ko seetal ko moo ko taqaloon ndax doomu aadama dafa ñëw ci kaw suuf ci kaw ak tooñ kon moom li ni ko na seet moo ko tax te it nag yàlla yërëm ko yërëm gu toll ni bi mu nekkoon na seet it wutal na ko ay jumtukaay yoo xam ne bu góor góorgóorloo dana set xam nga sallallahu alayhi wa sallam sunu borom da ko indi ninu saabu baa ngi nii ndox maa ngi nii fóotkat baa ngi nii xool leen ko rek xool leen ni muy fetee ngeen jéem noonu bu ngeen seetlewu ni mu seetle it moom moom na ngeen euh, fu maanaam bu set bu ngeen seetlewu ni mu seetle it fu set ga toll baax na ci man maanaam fu set ga tar rek fu set ga toll rek gërëm naa lool loolu mooy wa in tuti'u tahtadu sallallahu alayhi wa sallam moom bu ngeen jaaree fi mu jaar rek baax wala su ngeen ko jéemee kon yàlla moom am na yërmande ci bi mu nee la yaa ko taqal na ko setal wutal na la pexe moo jaar pour mu set yàlla day ko maanu du tooñ fi ni ëllëg sunu borom bu duma nit ci kaw yow mii da ngaa njool wala da gàtt wala da ngaa rëy wala da ngaa tuut wala da ñaaw wala da rafet lu tax loolu nit ki amul coobare ci benn ci yooyu coobare suñu borom mooy fekk nit gàtt mën a am njool mën a am bu def benn ba bàyyi ba ja des yi ma wax yëpp noonu lañ demee kon nit ki sunu borom du ko duma mukk ci euh, loo xam ne dañuy wax ne lii ndax ndax nuruwut ak tooñ wala wan naa ahlaknaahum bi ba ay jeex la qaalu rabbana law la arsalta xam nga nit ki boo ne ko demal ca tool ba bay muy njëlbeenu nawet gerte sax euh, nu ngi koy waxee nduur sax ñoom ñaar dañoo bokk nu nuy tàmbali ab saxaay maanaam ñoom ñaar bu ñu doog a sax kenn ko ne ñaari xob la am ki xammee gud nduur ak gerte soo nee ko demal bayi te néewoo ko lii mooy nduur mi dagg ko ba fii lii mooy gerte gi fitnaal nga ko suñu borom nag du xiwut akub jaamam ci noonu kon ma gën a upp muqaddima bi ci kaw di wax ni xol ndab la loo xam ne ñu sotti la ci nékki bi nga mos ko sa xol sedd mënta ne lu dul danga seetal ndab bi moo tax suñ tubaab ni woon nu amma ida shurifta bil xuyubi fa tahiril qalba min al uyubi boo bëggee ñu defal la ci ndab li dara na ndab li set teg ca ni la Euh, euh, teg ca ni la euh, idil idil teg ca ni la maanaam idil uyubu lil uyubi daafia idil uyubu lil uyubi daafia kadal xataaya min da maania dani la dafa am ku ne ci biir koo xam ne bu génnut kii dugg uyub bu fi nekkee buñ génnut uyub bi dugg mooy wa inna lan nadxulaha xatta yaxruju minha fa in yaxruju minha fa inna daaxilun Moussa dañuy dugg la ñu ne ko déedéet ci kaw nañ génn buñ génneen kon uyub bu génnut uyub du dugg kon muqaddima bi mën nañ koo tënk foofu te jàll ci tomb bu njëkk bi muy lan mooy xol xol dañuy wax ni al qalbu udwun sanaw bariyu shakl muudaa fi ljanibi al aysar min alsadr wa huwa ahamu aadaai alxaraka addamawiya xol ci euh, ci taarifu laata ngay ñëw ci arif tasawuf xëy na dañuy wax ni sonaw bar ni doom bay mel xol noonu la bindoo ne ci dënn am as lunk lunku jëm càmmoñ di ko xam ne alaqa bi am ak deret moom rek la ñun ni nombre de bi muy am ci minute bu ne mooy quatre-vingt fukk léeg-léeg mu wàcc ba soixante wala mu yéeg ba quatre vingt waaye yooyu yëpp ay jaxe xëy na ay ay ay sabab lay doon waaye li ëpp ci lu ñuy xam daal loolu la war a doon mu doon loo xam ne boo ko doon peese tey wasnu bi mu lay jox mooy trois cent mën na laa jox mën na laa jox euh, trois cent cinquante grammes wala deux cent ci kaw xëy na bu dee góor wala jigéen bu fekkee nag danga jël xol bi lépp boole ko ak jëmm ji wasnu bi mu lay jox ci boo ko boole jëmm ji lépp mooy. zéro virgule quarante cinq pour cent wala zéro virgule quarante pour cent ci jigéen kon foofu ku ne mën ngaa tontu sa bopp ni ndax kon kon sa walaysa dakar kalonsee këlonse walla kalonsee walaysa dakaru kalonsee góor du jigéen ku wax loolu ndax xannatu mi jurub Maryama moo ko wax bu fekkee moo ko wax leer na bu fekkee waxu ko wax yàlla kon lu muy firi pourtant bi firi mi du soreeg lee ndax mooy yow yow yow xañ na am na góor boo tegoon sa bët di ma ko ñaan mayuma la ko jigéen laa la may waaye jigéen gi ma la may moo gën góor googa waaye ba léegi mënees su ci dégg ni jigéen a gën góor jigéen gii ma la may moo gën góor ga ma yow waaye góor ga ma ñaan du sallallahu alayhi wa sallam nga moom tuddaguñ ko kon léegi kon waxaguñ ni kii moo gën góor yëpp kon jigéen gi ma gi ga ma ñaan jigéen gii ma la may moo gën góor googa ala kulli xaal Eh, yi ma dul mën a xuus ci wet googu rek mooy eh, yi nuy woote ci yooyu dama koy lëfin eh, xol it mënta doon ñaar ci nit doomu aadama bindoo xam nga sax li wax sëb rein mën naa doon ñaar bii di pesé ci defe naa cent cinquante grammes ba ci des loolu nga xam ne ñaar yi mën nañ loolu waaye xol moom mënut loolu waaye nit daal mënu ci am ñaar ñi ko bëggoon a saxalal nit bis ñëw na euh, nit kooku lëf dal ko loo xam ne xam na ni nekk nit du nekk nit du am ñaar ndax arab yi da am na ku daan wooye dal qalbay xel mi dafa baax muy jàpp ban kii yurul benn xol ñaar la mu gëm loola ba gëm ni sax xanaa du moroomum sallallahu alayhi wa sallam ci jàpp dara ak waaye sunu borom feeñal ni ndekete waa ji du borom ñaari xol benn kañ la mooy badr waa ji dafay dawe badr dajeeg abu sufyan abu sufyan ni ko waaw maa xaalu naasi nit ñi ci ban situation lañ ne mu ne ko ah, nit ñi daw nañ di nit ñi daw nañ abu sufyan ni ko man de des naa beneen laaj mu ne ko lu mu doon mu ni ko damaa gis ni yow sa wenn dàll bi mi ngi ci tànke weneen dàll bi mi ngi ci loxo bi waaw loolu moom mu ni ko ah man de jàppoon naa ne ñaari dàll yépp ñoo ngi ci samay tànk ci yow mi laa xamee ni ndekete wenn dàll mi ngi sama loxo kon fàtte na ni wenn dàll waa ci tànk bi wi ci des mi loxo bi kon ca lañ xamee ni ndekete waa ji benn xol la yor kon xol du doon ñaar bu ñëwee nag ci ñi ñu gën a jigéen te man koo leeral leer goo xam ne xëy na bu dul leer nag nit ñu mën caa xam aslëf te mooy ahlu tasawuf nañ ci jël ku mel ni Ghazali radiyallahu anhu moom dafa wax ni xol day ñaar wala dafa amee ñaari maanaa bi mu njëkk a wax moo tolloog bii ñu wet gii leeral bi ci des nag mooy dafa wax ni huwa latifatun rabbaniya ruxaniya laha bi hada qalb al jismani moom daanaka danga naan rek secret la boo xam ni yàlla ko xam waaye ñu wutal ko tur woo xam ni ah, nit danaan man de jàng naa laa tudriku labsaar wa huwa yudriku labsaar wa huwa latifu lxabir laa tudriku labsaar ndax latif la ñu ñëw ci xol ni xol latifa la latif bii xaaliq la bii max euh, euh, bii latif xaaliq la latifa bii maxluuq la waaye li ñuy jige jige jige jige ci ay tur ñoo gën a soriyante yàlla rekk yàlla yàlla bu la ñaari baat yi jaaxalee ba nga nar a gag yàlla moom du jiir mu du orob du looy teg baaraam ni mi ngi nii wala mu ne fi baram nga xam ne mu ngi fi waaye mënu ni mi ngi nii gis ba ni xol nag doonte nee nañ latifa la lu ci mën a xew moom sallallahu alayhi wa sallama wax na ci loo xam ne danañ xam ni kon xolkat doonte mënoo caa dut baraam yi da nga ne mi ngi nii mi ngi fii te mooy li wax ni at taqwa haahuna ak at taqwa naa joxoñ jëm ci xol bi kon da nga moom ñu ngi fii loola nag mënoo ko ci sunu borom tabaraka wa taala kon ñaari baat yi luñ jigee jigéente am nañ xajjale ci foofu ngir waxtu wi kon tomb luy xol dañ koy daal di tënk foofu ñu ñëw ci tomb yi nga xam ne xol moom rek moo ko moom beneen cër yi ci cër yi moomu ko amul sañ-sañu jëfandikoo ci te atinu ko mooy li sunu borom tabaraka wa taala wax wala li xadis nabawi yi indi ni alqulubu fi qabdati arrahman alqulubu fi qabdati arrahman xol yaa ngi nga bugg yàlla pourtant kullu shay'in fi qabdati arrahman lépp a ngi yàlla téye waaye lu tax ñu tudd xol day ku am Euh, cër di kilifa ci biir ñi mu àndal alhamdulillahi alladi sadra jaal matbuca awsaali alcibaadi faljaal alqalbu kalmaliki fi lacdaai mahma yamil tamil maa iqtidaai kon xol moo am daraja ju toll noonu ñu ni alqulubu fi qabdati rrahman te waxuñ ko ci beneen cër Euh, muy ku bari ay jagoo ndax saa yu taxawee lépp taxaw fi ñu doon ni docteur yi su nit ne su nee ndax jóge na fi wala jógewu fi daanaka jóge na fi jógewu fi fañ koy xamee dëgg dëgg dëgg xol la te mooy battement boobu muy def xëy na boo ko tegee fii da ko yëg waaye fi mu lay gën a wóoree mooy nga jëloon sa ñaari baaram yi teg ko fii na muy yëngatoo ko fa lay gën a leer foofu ca la ñuy waxee lu leer ba xam ndax dund am na wala dund amatul. mu am leneen loo xam ni lañ ko waxal loo xam ni xadiis qudusi la waaye mu nuru bee ñu weesu te mooy li sallallahu alayhi wa sallam nett li waxi suñu borom yi mu wax ni asamaan suuf euh, sama arash bi sama kursi bi amu ci lenn loo xam ni maanaam mën na ma dékku lenn rekk moo mën a dékku mooy xolub jaam bi ma gëm sama jaam bi ma gën xolam mën na maa dékku waaye leneen mënu ko loolu jagleel goo xam ne xol rekk ko moom ak sallallahu alayhi wa sallam nit ñëw na ni ko ayna allahu fi lard suuf siinu nekk fu fi yàlla dëkke ayna allahu fi lard dëkk bii fu fi kër yàlla ne xam nga dëkk boo dem kilifa gu mag ga moom soo mënta àgg ci moom it danañ la li fii la ne ba ci kii yilif réew mi moom mënoo xëy xëy sol sa bolog ni dama fay dem waaye nag boo demoon ndakaaru yi ñu ni fii la ne kon bu ne ayna allahu fi lard yàlla fu mu ne ci dëkk bi man faa àgg ak man ak ñàkk faa man àgg mooy am waaye lu ci mën a xew moom lam ca tontu mooy yàlla day bu doon am kër ci dëkk bi mooy fi qulubi ibadihi almuminin foofa mooy doon këram dëgg la nag ni nga aaje woo ci waraqatul ruur ngir dem fi nga bëgg a dem boo ko yorul ñun la dëppal moom it noonu la yore loolu nga xam ni soo ko amut moom du ñëw waaw yow am na ab mu ruur bu war a am ngir mu ñëw waaye bu fi nekk du ñëw comme ni nga xam ni yow màggalu daaru gi rek soo doon ñëw am na kër kilifa yi noo leen jigee boo amul waraqatul muruur doo dem muy misaal bu foofu it nag laaj taxaw fi mooy ku am gan gu tol noonu nag wala ku mën a am gan gu toll noonu ndax fañ koy war a dalal wëri su ko waajal te mooy xol bi ab laaja ngoog ku nekk ak tontom mu bokk ci yi nga xam ne xol rek moo ko moom kenn du ko xëccoog moom mooy xol rek mooy maxallu nazari rabb xol rek ci la yàlla am solo euh, soxla soxlawul leneen ci cër li ñuy wan ni xol bi rek la soxla mooy Ammaar waaye lislaam ñu bari xam nañ ko ibnu Yaasir moog ndey ja Sumayya daj nañ lu ne ci lislaam ba Ammaar daa mujj dellu gannaaw wax lu wuuteeg lu ab jullit war a wax ba loolu amee nag mu ñëwaat ci sallallahu alayhi ni ko ah man def naa njaaxum mu ni ko lu mu doon mu ni ko ah man day fitna je metti na ba wax naa lëf sallallahu alayhi wa sallam ni ko kayfa tajidu qalbak bi ngay wax loolu bi nga laajee sa xol sa xol lum la tontu mu ni sama xol dani ma ana mutma'innun bil iman maa ngi ci yëf yi de nee na sallallahu alayhi wa sallam ni ma suñ defaatee lañ defoon defaata la nga defoon kon illa man kuriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman kon xol bi rek mooy li ñuy lijjanti waaye loolu nag niñ ciy jëflante xol amul keneen ku ni lijjante war noonu ci cër yi moo tax ya ah, Ammar moomu ngeen dégg sëñ Musaa di wax naan yaa siir ca door ya yaa siir ca door ya la faatoo Moustapha ko jullee ñu rob ko tabbal ko fil jannati yàlla suñ dellu suwaatee tuuti nag ci li sallallahu alayhi wa sallam tontu woon wax ni sunu boroom fi qulubi ibadihi al muminin euh, dañ fi leeral tuuti mooy dañu waxoon ci gannaaw ni yàlla amut lu ko yanu walla la lum ne ci kawam wala lu ko tiim wala lum ne ci biiram loolu amut yàlla kursi yom bi li muy rëy rëy rëy rëy arasham bi li muy rëy rëy ci kaw bu fekkee yaar lañ ndax daa am ñu wax ñu wax ni benn la waaye wuute gi daa bari waaye li muy rëy rëy rëy rëy te ak rëyaayam àgg na ci asamaan ak suuf boo ko ca sànni woon day mel ni fépp dugub boo sànni ci àll bi moom noppi nga ko gis noonu la asamaan ak suuf demee ci biir al kursi wala al arsh ba noppi yàlla ni xëjuma foofu ba noppi nag ni nag xaj naa ci xol nga ne waaw luy xew luy waaj a xew ñu ne la ñaari tontu la li ci indi rek mu leer sa bopp mooy yàlla ni ma ko waxee woon du jiir mu do arad gannaaw nag du jiir mu do arad bay dugg ci àtteeb tuut ak rëy kon yàlla amul jafe-jafe naan damay jël lu toll ni sama jëmm ci faraax bi amul jafe-jafe boobu ba nga naan kon kat na jëmm ja toll rek faw fu toll noonu ci faraax bi la mën a xaj bu foofa yaatoo te fekk mu rëy mu xaj fa bu foofa sewee te fekk mu tuuti mu xaj fa yàlla mbiram demewut noonu ci wet googu kon moo tax lee mën a ne ñaareel tontu bi mooy gannaaw yàlla mu lu ko soob mu def ko muusa nit la ni nun ne ci àddina xam waxi sunu borom joo xam ne moom danga nga naan wax ji nit wuru ko xam ndax Moussa wax jim xam wax la joo xam ne mu bàyyinun li jinsil xaraf wax joo xam ne amuti xaraf amul sawt nu ko nit di mën a xame te soob na yàlla Moussa xam wax ju mel noonu ci àddina te mooy wa kallama allahu Moussa takliman takliman ji moo nuy moo nuy won ni maanaam doo ixtimaal ni mën naa am wax ji majaaz la du majaaz xaqiqa la dëgg-dëgg daa wax ak moom gannaaw nag sunu boroom soob na ko Muusaa xam ci àddina wax joo xam ni nit waru koon a xam kon soob na ko funni waru faa xaj mu ni xaj na beneen tontu bi ci loolu mooy euh, ni mu ko soobee ëllëg nun jullit ñi insha allahu taala ñu teg ko bët te fekk boobu ñun bu gisee yàlla li ñuy gis du lawnu du gis bu waaw gis lu fi nekkul ndax mën naa ne te sax na ni danañ ko gis insha allahu taala almutazila yi weddi ni duñ ko gis ni leen yàlla weddee rafetaay yu dafa jéggi dayo wujuhun ma idin wa wujuhun yawma idin naadira ila rabbiha naadira nga xam ni foofu dafa am tajnis boo xam ni tajnisu samo la nga xam ne yow mi koy dégg li ngay dégg day neex ci yow comme ni tajnis bari ay xaaj waaye tajnis bi samo la suñu borom bi mu leen di weddi ci la leen weddee nga xam ne day mel ni nit ki sax day bëgg a xam li ñu weddee gaa yi lan la maa ngi jéglu ci waxin yawma idin la mahjubuun am na ñu ko dul bokk na ci xol wéetoo moom rekk ko moom mooy su jagee lépp jag ala fil jasad wala inna fil jasadi mudga ba xadis ba jeex wa man yakun li sir li sirri qalbin musliha tasluxu ala niyatuhu fa yufliha Sëñ Tuubaa nee na bu xol bi jagee moom nasam sama xel dal te xam ne li ci des lépp dana jag incha allahu taala bokk na ci yi nga xam ne xol rekk ko man mooy gërëm yàlla te gërëm yàlla li ci li ci ne yàlla rek ko xam te loolu fi mu doon xol képp moo man loolu zunnuun dani arrida sururul qalb bi murril qada gërëm yàlla mooy lëf li wax na xat waaye mu neex ci sab xol ba mel ni sixoo kaani sexoo xettar waaye lem nga sex nee na loolu mooy rida ku ne xam ne ni yombut gërëm yàlla nag lu am solo la sëñ bi lan nag nee woon na radiyallahu anhu wa radu anhu ah, yàlla moom bu la gërëmee nga gërëm ko waaye wax ji nag mooy kañ la lay gërëm moo tax sëñ bu sa ilimaan mu baax ma mu son naa wax nit loo xam ni ku ne war na ko xam dafa gis kuy góor góorgóorlu lool ne ca lam war a ne mu ni ko kaay ma dénk la lii nga war a ne toog ci te bañ ci jóg ni ko saa yoo yootoo lëf te mënoo caa àgg mu wóor la bala nga caa mën a àgg da nga naan ñokket ci wërte fi nga nekkoon mu ni ko déedéet bul jóg toogal mu ni ko bis dana ñëw yett yi ma lay wax faw benn dana ci am bis dana ñëw la nga doon yóotu te jotoo ko suñu borom may la doom mu yóotal la loola andil la ko jox la ñi seeni doom jox teraanga joo xam ni bëgg nañ ko euh, diiru nangami at te jotuñ ca kenn xamul nu mu toll ni ko bu loolu amut suñu boroom indil la doomi jàmbur mu ñoddi loolu indil la jox la mu ni ko yaar yi bu ci benn amut nag suñu boroom jox la xol boo mën a muñe li nga amut te li nga amut te mën koo muñ moog loo am ba denc ko sagal ñooyam kon gërëm yàlla ci nim defe xol rekk moo mën loolu te gis ngeen li ciy juddoo sunu borom yi dafa wax ni yéen jaam ñi bu ngeen di ñëw na kenn ko ne gàddu bi yóbbal indi waaye yóbbal bi yàlla soxla dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg kudul xol mënoo ko yób kudul mënoo ko yët yàlla laa yanfau maalun wala banuun illa man ata allah bi qalbin salim alqalbu salim mooy xalbu na nga wax ashhadu ab tànk du ko wax ab loxo du ko wax xoloo koy wax te gëm loola te jàpp ko muy nag xol bu ma indi loolu yóbbal bi ma bëggoon ñu indi ko ñëw na loolu xol képp moo man loolu wa maa amwaalukum wala awlaadukum billati tuqarribukum indana zulfe illa man aaman wa amila saalihan ba ay jeex xol rek man lool yéene mi nga xam ni moom it lu ne mën na caa sottee ci bagage yi xol la bokk kon yim wéetoo nga xam ne moom rek moo ko moom ci la bokk yéene di rëbbukat bi nga xam ni rab woo soxla mën naa defum njàmbaaram ba indil la ko te nga toog fi nga toog te jógoo fi loolu yomb naa misaal xaswatu Tabuk xaswatu Tabuk mi ngi fi metti lool di jamono yu mbóoya ba Omar nee na ci xaswatu Tabuk dangay gis ku jekki-jekki rendi ak naagaam jël sibiriit si nal ko ba ndox génn mu ngir Omar ba Abu Bakrin dafa mujj ni yónent bi inna allaha qad awwadaka fi duaai xayran fadu naa yow de yàlla mane naag yow ci wàllu ñaan ñaanal ndax boobu ndox mi manqué na ci xare bii may wax pour ñu xam solo su yéene mi nga xam ne xolo ko moom yonent bi dafa toogum yàgg mu ni madina de moo na am na ñu fa ne ñoo xam ne ñëwul ci xare bi te fuñ toll ñoo ngi fi toll ak nun te ña nga madina de saxaaba yi ni ko waaw ña nga madina te fuñ toll ñu toll fa ak ñoom luñ ci am ñu am ko ca te nekkuñ fi mu ni ko waaw ñu ni ko lu tax mu ni dañoo am ngànt ànd ak ñun ci yéene ju rafet sunu boroom féete nu fa mu leen féete féete féete leen fa nu féete mooy li mu wax ni inna bil madinati aqwaman maa qataanaa waadiyan wala anfaqnaa nafaqa wala asaabatnaa maxmasa illa sharikuuna fi dalik wa hum bil madina qaalu wa kayfa dalik ya rasul allahi wa allahu alayhi wa sallam qaala xabasahum aludru fa sharikuuna bi xusni niya yéene lu mbir sori sori sori mën na la caa boole te loolu xolo ko moom sëñ mu baax mi nee na fépp fun fun wootee am po sunu borom dana fa wàcce juróom-ñaar fukki musiba ña woote fa moom ñoo moom ñeen fukki ya ku wuy si yaa moom ñaar fukki ya juróom benn fukki ngoo xanaa mu des fukk fukk yooyee ku am yéene ñëwoon te amul gàllankoor bu ñëwut yaa ko moom id qalbu usmaana fihim kal gusaati maan te loolu xolo ko moom njariñ day sori lool nga toog fii bokk ca loolu ci ay jaglem la bokk te ci tabuk bii moo waxoon xare bu doy waar la boo xam ne sunu borom day mel ni bi muy santaane nañ fa dem day mel ni daa muñulul kenn ne ñëpp dem infiru xifaafan wa siqaala bu kenn toog ku wér ku wér déeg ku ne ci ay soxla ak nañ ñëpp dem bu kenn toog gannaaw bi la leen dabaatal ci yërmandeem ni laysa ala duafa wala ala al marda ba ay ji jeex doog leen teggil coono boobu yéene ci bi nga xam ne xolo ko moom ci ngay jaar mu jox la tuyaaba ju la mën a dugal ci yërmande yàlla te fekk jëfoo jëf ja ëllëg nit dina taxaw ci kanamu sun boroom yor téere bi jëfam di jàngam yàgg mu ni yàlla téere bi dañ koo jaawale bii moom ma ko mu ni ko lu tax mu ni ko damaa cee gis jëf yu ma jëfut mu ni ko axa ah kay say jëfa mu ni ko ci naka mu ni ko danga waxoon ni bu ma amee kattan bu ma manee danaa ko def ma yër soxol xam ne loolu loolay dëgg ma bindal lu tuyaabay ku ko def loolu yéene comme ci yéene lay jaare te yéene xolo ko moom ponki lislaam yii bu ci yéene tabaxut du tabaxu nay koor nay nay julli nay koor gi ñu ne fi noonu boo xëyoon xëy ni euh, naa ko bañ misaal sama bopp maanaam ku doon warum yàgg mu ni maanaam man daal koor gi naa ko teg fi su wóorutuma ku ne xam ne koor gi day yàqu kon yéene mooy mooy mooy mooy mooy fondation bi nga xam ni moo moo moom rek mën a taw mbooleem lu ñuy def ci lislaam te yéene moom nee naa xoloo ko moom danaa ci andi yeneen misaal ngir rek waaw euh, loolu it yàlla bu ma dal Eh, te yàlla mu dal keneen mooy fase eh, yàlla ko ni ci àddina waaye même fase day am lu ciy feeñ loo xam ne danga xam ne lii yéen a doon ko indi maanaam waa ji am na soxna soo xam ni kenn la tudd maanaam waxuma kenn nag waxuma kenn maanaam soxna si kenn kenn la tudd soxna si si des tudd keneen muy woote daal ni kenn kenn moom xëy na nekku fi wala da koo déggul far keneen wuyu ni ko naam wala mbakki bal mu ne ko fase naa la bu boobee ku moom fase bi kenn min woote wuyuwut moomu ko keneen ma wuyu moo ko moom moo tax boroom muxtasaru xalil ninu fal maduwa kañ woow moo moom fase bi nafiq fi mu toll nii li koy def nafiq dëgg dëgg dëgg dëgg mooy yéene te loolu jëmaat ci xol ndax ñi ñëw ci yónent bi ni ko nashhadu innaka la rasulullah li ñu wax dëgg la te suñ borom nee na waxuñ dëgg fi ñu dëgg fan la mooy liñ wax ci kaw ak li ci biir daa bokkut ndax dañoo wax ci kaw ni ko yàlla yónni ba noppi weddi ca biir sunu borom sukkandiku ci yéene yéen nii li ñu wax dëgg moo tax sëñ bay jaxate nim nu nettalee naafiq moo bokk ak ni ko alxuraan waxee naafiq baaxul na muy mel bokkul ak na mu mel daan ayam wa day na ca biiram yiw wa nekk ci kaw ma li ci yéene ci benn masala yéene ci lan lay topp ba su ma daje woon ak sëñ bii ni ko yow da nga maa amee lu junni waaye nag waat naa ci yàlla ni bala maa jóge fii bala nga fiy jóge da nga ma fay dama giñ wax loolu moom mii mu defi pexe ba daw yoon danaan ma yow kën ngiñ li danañ la ko topp ba ay daan dana la ci war ma ne xanaa da ngeen ne waroon a bàyyi ba ma defuk sàggante waaye man ba ma ko waxee loolu maa ngi doon bàyyi xel ngir bu mu daw ñu ne ma déedéet càggante gi moom nga na nga ñàkk sàgga ñoo yow daal yéene jee ca lañ lay atte wala waa ji dawut dani ma man ameel naa la junni gaa waaye diw ameeloon na ma junni kon kaay ma jox la booba ma ne ko waaw baax na ba tey du tee daan yi dina ma war ndax lu tax mooy yéene ji ni may toppe mooy ba may giñ la ma jublu mooy fii nga may faye te yaa may fay moom lañu ñu boroom xalil wax ni wa bi firaari garimihi fii laa faaraqtuka aw faaraqtani illa bi xaqi walam lam yu walaw lam yufarrit wa in axaalahu bi may tëjee ci ji xol jagoo mooy ndeke xol mooy ardul watan lil maarifa maarifa mi nga xam ni diine jii mu nekk te yalla ne nu yéen waa lislaam yéen ñi moom alquran yéen ñi moom lislaam ku xolam seddu dina seen xol sedd qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika falyafraxu diine jooju nag la ca ëpp solo muy maarifa ardu watan fa mu dëkk mooy xol foofu nag fi lay taxaw wone ni ndekete yett kenn ku ci ne sunu borom dala sedd ba nga giijal waaye ndekete kenn ku ne li liñ la sedd cër ya boo ci amutoon benn budul benn mu doy loolu mooy lan xol sunu borom da koo sedd yu bari waaye su ko xañoon yépp ba mu des lu dul mu ni ko yow yaay ardul watan lil maarifa doy na ko sëkk day doon maqaama boo xam ne taqumu maqaama al illatayn ki ci des mooy dëddu àddina yi ci ne ci ay njariñ daa bari waaye am na benn bu ca nekk boo xam ne bu ca benn nekkutoon bu dul booba mu doy law lam yakun fiihi siwa ridwaani lahu kaana kaafiya insaan dëddu àddina njariñ lu nee ngi ci waaye bu ca dara nekkutoon lu ngërëmul yàlla mu jar ko bi may ñetteele nag ci yett yi nga xam ne kenn ku ne am nga yu bari waaye benn képp doyoon na la ca mooy diggante as sadl ak al qabd du ma jox ay insha allahu taala malik yin koy taawilal ba ni moo tax mu sib qabdu ci farata yan wax daa bari waaye buñ ci indi woon benn képp mu doy te mooy muxaalafatuhu li amali alsaxaabati waltaabiin min ahli almadinati addaalatu ala nasxihi wa in saxa bihi alxadis sadlu moom bu ñu ci amutoon benn tegtal budut xabdu dafa wuuteeg la taabiina yi ak saxaaba yi doon def ci madina ak doonte xadis bi biir rod ci bu amutoon wenn lay benn tawil bu doon woon boobu it doy na ko sëkk ci ab tawi te almalikiya ahmad alxadim te almalikiya dañoo dañoo dañoo doyloo lu mat doyloo ndax ñoom dañ leen a seedeel ni ida alimu wa taraku alamala bi dalla dalika ala nasxihi fa yuqaddamu amaluhum alayhi moom saa yun defee lu wuuteeg xadis bi moom loolu day tekki ne kon xadis bi dañ koo nasxu folli nañ ko doxatut ñu jël seen jëf jiital ko ci kaw xadis bi moo tax ñu ne amalu ahlil madinati muqaddamun ala alxadis asahih ma doll ci tuuti loo xam ne ba tey du génn mawdu bi ndax day delluwaat ci xol mooy li ñuy wax at tamadhub bi gayri al awal bàyyi madhab jàpp madhab ndax day am te loolu am na ci loo xam ne mbirum xol ci lay dellusiwaat loolu sharia nee na nangu naa ko bu fekkee dafa jaare bi garadin sahihin am na gërëbu sox yi boo xam ni boo ko nettalee sharia sharia ni la waaw gërëm naa lool saa yu amee intiqal min madhab ila madhab daal dagan ñaari anam la mooy yow su la wóoree ni madhab bii wóor na mu wóor yàlla ni diis na ci man ba lay gën a woyof ci man boobaa aayut nga taxu dem ci boobu xaral boobu ndangu na ko wala madhab bii addil la yim am moo gën a leer ci sam xel ba ca des nga ne kon naa fi bàyyi bii dem ci bële ñaari xërët yépp sariya nangu na li ko jaaxal kay mooy xërët boo xam ni bu amoon dan waaw ndax waa ji defu ko li arsidatin mutamawilatin muy sikki sàkk wala intiqaal goo xam ne bu amoon boo rombee waa ji sa xel ni yar ci tabtaxuuna aradal xayaati dunia tuxu boobu moom moo garaaw léegi nag fi sukkandiku ba ni tuxoo ci mazhab dem ci mazhab dagan na imam shafii radiallahu anhu ghazali mi nekkoon ci mazhabam def na ko ghazali ci mujjug dundam dafa bàyyi mazhabu shafii ñëw ci malik daat ni man malik dafa mel ni daal dafa dafa dafa euh, dafa mel ni dafa bari wattandiku te loolu ku ku xool waxi malik xam ko malik dañ koo laaj ni ko waaw nit bu ni woon fase ne giñ ni bu bu bu bu Aboubacry nekkul àjjana sama soxna fase na ñu ne ko ndax fase ndax ndax ndax ndax soxna si dana fase mu ni déedéet ñu ne ko waaw su ko waxoon ci Omar ibn Abdul Aziz mu ni Omar ibn Abdul baax la ñu laaj ko xaasim xaasim ni leen loolu ku waxoon ci ku ko waxoon ci Omar ibn Abdul sa soxna du fase ñu ne ko lu tax mu ni sunu borom moo wax ni antum shuhadaa'u llahi fi ardihi fa man asnaytum alayhi bi xayrin wajabat lahu aljanna yéen nit ñi yéenay seede yàlla ci kaw suuf ku ngeen seedal aw yiw mu yóbbu ko ajjana ñëpp seedal na ko aw loolu mu xam Maalik xam na ko waaye xëy na bari wattandiku moo tax noonu kon Shafii Ghazali li ko jëlee ci madhabu Shafii yi indi ko ci Maalik wattandiku rek la euh, Abu Jaafar at def na ko jóge na ci madhabu shafii dem ci abu xanifa kadalik taqiyuddin ibnu daqiq jóge na ci madhabu malik dem ci shafii yar yëpp am ndax yépp yëpp jub ndax madhab yëpp ak njub la ñuy jàngale moo tax borom usul ba ni ñu amma tamadhubu bi gayri l fa sunu gayru waxidin mubajali ka xujjati l wa taxaawi wabni daqiqi liidi di lfatawi in yantaqil in yantaqil li garadin saxiixi ka kawnihi sahlan awi tarjixi kon lim dellu ci mbirum xol moo tax ma tudd ko xol nag tomb bi nga xam ni dañ ciy leeral li nga xam ne xol moom xëy na mën na koo bokk ak keneen waaye nag bu teggee wàllam nga ne ah ndax jëlul lépp waaw li nga xam ni moo xol ñu xol da caa am wàll keneen am ca waaye bu xol jëloon wallam ñu ne ah ndax yëfi jeexul loolu mooy xam arab yi am na lu ñuy wooyee ci xeetu carte al mualla ñu cay doon léeg-léeg al aswad bu doonoon ñu koy def fii am na benn xob ci biir xob yi boo xam ni boo ko xasee téye rek daanaka gañe nga lépp loolu mooy al mualla ci carte xol nag day mel ni saa yuy teggi cir yi day mel ni boobu lay jël nañ ko xool ci lii ñuy waaj a leeral xol làmmiñ yaram bakkan len lu ci ne suñu borom da koo gàll ak cant bu mu war a sant nga xam ne bu ko deful rek santu waaye boo xoolee lim gàll xol ci cant gi buñ dindi woon wàllam day mel day jeex ndax moom la gàll ni ko yow xol war ngaa sante ne ci tawxiid war ngaa sante ne ci maarifa war ngaa sante te muy bëgg yàlla bu jeex takk war ngaa sante al xalaat ci yi lay dolli ak jàpp ci yàlla ak ak tarku ak tarku tawaariq ar radia xol lañ ni yow kat bu guddi jotee am na yuy fëgg naan koŋ-koŋ bëgg a dugg si waaye yooyu bul ubbil kenn loolu xol lañ ko jox kon moom bu jëloon wàllam ci cant googu day jeexal xam naa waxtu yi mooy tax tënk rek lay doon hmm, ci ci ci ci ñi ci des muy santu làmmiñ moom mooy al iqrar bi tawxid te iqrar bi tawxid ba lay am day fekk tawxid ne fa kon moom ak cantam daanaka dugg na ci biir cantuk xol bu doonee cantuk yaram wi mooy mu sant bil ibadat al badaniya yim santaane te yaram man ko mu di ko def loolu mooy ak cantam bu ko defut santul yàlla waaye yooyu it boo ko xoolee euh, am na solo gaa waaye boo ko nattee ci cirub xol mu xaw a tuut aslëf ndax yooyu ngay seen ibaadaat yi ca dëgg-dëgg euh, mucc su doon def ibaadaat yépp te tawxiid amut mucc mënta am nit moom bu duggoon ci bàmmeel te yóbbaale fa lu dul maarifa tawxiid mën naa mucc waaye leneen lu mu fa yóbbaale te lii demul du mucc moom la suñu Tuubaa naan li annahu an gayrihi yugni wala bidunihi yufiidu ilmun musjala kon ca dëgg bu mu séddoo gaañi yóbbu na lépp te liy xamal ne yóbbu na lépp mooy yéefar bii dem ëllëg te yóbbaalewul xol bu yor suñu borom nee na du fa tekki dara yéefar amut valeur ëllëg fala nuqiimu lahum yowma alqiyamati wazna tekki fa dara sallallahu alayhi wa sallam nee na yu'ta bi rajul al tawil al akul al sharuub fala yazinu janaaxa buuda buuda ëllëg danañ jële fee jenn waay mu toll ni waaw mu ñëw ñu peese ko laafu yoo ëpp ko lu ko waral mooy li ko waroon a diisal moo fa nekkut weddi na yàlla weddi ay yónenteem weddi ayaat ñëw tekkiwu fa dara kon xol li moom bu ko jëlee aw xott moo fay des xam naa gën a tënk rek liy dundal xol li xol di dunde mooy maarifa maarifa mooy dundal xol bari na xol yu woon yàlla dundal leen ci maarifa Fudayl ibnu al-Iyaad Ibrahima ibnu Adham siin ko ba ci barab bi bu ñuy denc ñuy bind aw turam te buur la woon boo xam ne nitu àddina la woon xolom dundutoon waaye yàlla dundal xolom ci maarifa aw man kaana mayitan fa axyaynaahu wa jacalnaa lahu nuuran yamshi bihi ba aye ji jeex kooku ci foofu la dugg may ko ngëm mu mën a seetantal yëf yi ba xam dëgg ak caaxaan ba bàyyi lam nekkoon jaar ci fi yàlla gërëm boo doon xàjjale nag maarifa ak tawxiid dangay wax ni maarifa mooy nga xam yàlla bi sifaat tawxiid mooy nga sellal yàlla soril ko lépp lu yellut ci moom kon gëm yàlla ak wéetal yàlla yaar lañ soo xamee ni yàlla ku am kattan la kuy dund la ku xam la am nga maarifa waaye nag sirroom moom maarifa mooy sirroom tawxiid soo ca dollee nag sellal yàlla soril ko ci lépp luy nuru manki wala ay ayib léegi nag yaa ngi ci tawxid kon ki boole tawxid à maarifa day xam ar rabb bi sifaat xam euh, ba noppi wëlbatiku euh, dàq ci moom lépp loo xam ne yëluwu ci ndax it nag nañ xam ni léeg-léeg al iman ak shirku dañuy dajaloo léeg-léeg ñoom ñaar ñu daje fi barab lu naqaree dégg la nag alladina amanu walam yalbisu imaanahum bi zulm zulm boobu sallallahu alayhi wa sallam nee na firi wut tooñ shirku lay firi mu'tazila yi bëgg nañ koo weddi waaye li wér bi li wér bi wér mooy shirku lay firi léegi nag bu boobaa jafe-jafe mooy shirku ak imaan nu ñuy ànde mën nañoo ànd ndax imaan bu dee firi rek mutlaqu tasdiq bu dee firi loolu rek dëggal moo xam ci xol la wala làmmiñ loolu imaan am na waaye bu amee nag ba noppi waa ji dàq al ya kon shirku ñëw na gëm nga yàlla waaye nag da nga dàq waxdaaniya loolu moo indi suñu boroom ni wa maa yuminu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuun kon al iman ak shirk bu ñu àndee ci wet googu la ñuy mën a ànd bokk na ci dundal xol mooy bu la yàlla woo akub yónenteem nga wuy ji istajibu lillahi wa lirrasuli ida daakum lima yuxyikum bokk na ci liy dundal xol ñu seet ko xolom dund ñu lay wax nam dundee woon comme borom daaru mii rahmatullahi alayhi wa radiya anhu ku la wax ni mu doon dunde loolu mën naa dundal sa xol man boroom daaru dafa bokk ak sëriñ bi waaye wolofalu suñ musaaka boobu dama mënta tari bayt bi waaye ni ma ko yëgee sama xol yàlla rek laa koy seddaloo lam wax banaan di saf laram ba lar defe naa mooy ab jaam maanaam koo bokkal nii ànd ak moom ci nii ba nga xam ne ku leen séenul ngeen di ñëw danaan xoolal waa ji akub jàmm kon kooku waxtaane ko dana la xamal nooy ànd ak sa kilifa dana la xamal nooy ànd ak sax kilifa ak jàmm dana ko xol tilaawatul quraan dana ko dundal yi koy rey yi koy rey moom lu ci jiitu bàkkaar amut balaam xolam na bàkkaar la saala ba xolom dee na bàkkaar la dafa ñëw ci sallallahu alayhi wa sallam ni ko ñaanal ma ma am alal sallallahu alayhi wa sallam ni ko tee nga day li nga yor te sant mu ni ko déedéet ñaanal ma rek soo ma ñaanalee la utiyanna kulla di xaqin xaqa alal di lu ci waay am dana la ko jox yonent bi ñaanal ko mu tàmbalee am ay benn benn xar ba mu yàgg yëf yi dolle ko ba xajatul biir madina mu génne mu génne jur gi madina di julli si tisbaar ak takkusaan suba gi du am jot mi ngi ci jur gi timis du am jot yëf di gën a dolli comme yàgg moo far bàyyi aljumaa wal jamaa ñëwatul ajjuma ñëwatul ci tisbaar yi takkusaan yonent bi yónnee fa ni nee leen na nee leen ko na joxe asaka mu ni waa ji demal daal bu ma xalaatal ba xam ne ca loola ba jamono sallallahu alayhi wa sallam bi fi yonent bi jógee mu jël asakaam yët ko Abu Bakr Abu Bakr ni ko déedéet duma ko laal mu yët ko Omar mu ni ko déedéet foog naa jamono ci la génn àddina moom la alquran di wax naan wa minhum man ahada allaha la in aataana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min alsalihin fa lamma day yàq ya xeet xol boo ko fekkoon muy dund sax am nu muy demee mu far ko uh, lafi Euh, defe naa bàkkaar liñ ci waxoon ci ak doy waaram ci diggante doom jee ñu wees woon ak yaay ja xaw naa doy di ci waxaat ay gaaf yu bari xam naa daal ku ne ba nga ca am Cheikh Gueye bi mu ci am mu def ca xelam te fàtte ca des mooy solo si ana mashghulun bi danbi an dunubil aalamina am na ko wax man moom saa yëfi bopp waaye tëluma keneen liy tawatal xol mooy lan mooy ñàkk bëgg yàlla ñàkk bëgg yàlla moom xol bu bëgg bëggul yàlla jëmmi cardiologue yi gën a doy waar bu ñu ko xooloon ba ne xol bi dara sikku jiit xol boobu moo gën a tilim yépp na nit ñu baax ñi dañoo mën a jàngale sëriñ Salihu radiyallahu anhu dafa am nawet bu mos a am njurul nawet bi doy waar lool daanaka doy waar ba dong yi di ko métitlu ba sëñ bi yëg ni dañ ko métitlu sëñ bi ni leen nawet bu nangu rey ak bu nanguwut mën naa am ñu firee ko nu mu doon daan leen yéen seenum nawet nangu na xam nga ni ki nga sam nawet nangu na te moom daanaka góobut mu leen seenum nawet nangu na daan li tax ma ne seenum nawet nangu na mooy yëg naa ni diirub li ngeen ne ci tool yi da ngeen koo boole ak di wéy ndigali suñu borom kon ndekete ku bayoon bërigoob kemb am junniy barigo te bay rek la doon def jaamuur yàlla réew ma moo fa gën a bonum nawet ku bayoon téeméeri bërigooy bu am benn bërigoo xottu te yaa nga woon ca la sa diggante sa borom sa kem kàttan kenn gënulam nawet kon bëgg yàlla mooy dundal xol xol bu ko amul lu nuru nuru ni mi ngi dund dund te liy wone ni xol bëgg na yàlla mooy àddina bum jeexiital ci xol xoy xoy àddina yi bum jeexiital ci xol suñu borom kat dani yéen ñii bu leen soxna yi ak bokk yi baay yeeg yaay yeeg alal yeeg taax yu kawe yi bu leen bu mu leen gënal wuy ji yàlla ca xare ba su leen ko gënalee rek bëggatu leen yàlla qul in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum wa ixwaanukum wa azwaajukum wa ashiratukum ba ay jajax nga xam ne sunu borom nee na yii kum gënal nga gàddaay wuti yàlla ku mu gënal nga dem ci haati na la wóor ni yow bëggoo yàlla waaye nag jàmm du ca mujj de fatarabbasu fatarabbasu mooy bu du tey di ëllëg bu ma dalul ci sa bu ma dalul ci sa kaw tey tey tey seenu ni suba mag yow fatarabbasu xatta yaati allahu bi amri kon dëgg gi mooy loo yor mu gënal la yàlla sab xol daa wéradi waaw ah, ku duniyaa mu bon mii ni dellub xolom amee gut béréb kon wu aw yiw di dem nit dana feebare ci bàkkaar ba xolom dootu dégg dootu gis tabaxu daal di am law nashaau wasabnaahum bi dunubihim wa natbau ala qulubihim fa hum bu bu safaan bi amee rek mu dundat de fee laa yasmauna la wax mu ne wattaqullaha wasma'u boo ragalee yàlla xol bi ubbiku bu ñu waxee mu dégg bu ñu diglee mu def bu ñu tere mu bay alladina kaanat ayunuhum fi gitaain an dikri wa kon ñu ñëw ci tombub jàngoro yi jàngoro yi moom dafa am jàngoro yu biiru ak yu feeñ yi feeñ moom mën naa sonal nit waaye mënu ko rey yu biir yi nag ñoo baaxul mooy ñoom jëw ak déedéet maanaam ndaw jëf bëgg àddina iñaan rëy ngistal yi ñoom niñ aaye ci ray xol jéggi na dayo te suñ tubaay nee na mooy jàngoro yi nga xam ne moom soo ko fajut suul xaatima wala iyaadu billahi taala lay indi mooy mujj gun santu yuxsha ala man fiihi kaanat jaathima walam yatub lillahi suul xaatima yàlla mi jàngoro yooyu nag kenn ngi nii dana ko tudd tudd saafaraam muy iñaan iñaan mooy lan iñaan mooy waaje lim yor boo sañoon du ci jot wala jot na ca ba noppi waaye boo sañoon mu ñàkk iñaane go xubbu zawali ni'matin am muhtadi huwa al musamma indahum bi hasadi li koy sabab nag mooy benn day sab noonu wala yàllaa la xiirul ci moom wala nit ñi dëgg-dëgg dañ koo wuti bala fi loolu moom mën na ko sabab waaye nag nit ki la war mooy su ragalee loolu mu fexe ba la tax ñu wuti ka ca des mu jéem ko ci bopp pour ñu wutsi ko ida ajabatka xisaalu mriin fa kunhu waaw ki nga ragal nit ñi wuti ko la fa ne ba nit ñi wuti ko da nga ciy jéem a loolu képp a woon a sax bu ko defee Euh, boo ni woon dama koy saafara nag ñun la saafara si mën naa gaaw mooy saa yu xol bi fexetoo ci ni diw mii de danaa ko def nangam ak nangam euh, teg palam ba jëkkal danga nga naan cëri dégg ngeenam li xol wax bu leen ko def xol moom moo ni mooy def lii waaye nag fexeel ba téye cër yi ba li xol bi fas diggante sa diggante ak waa ji fexeel ba cër yi duñ ko tanfiis maanaam duñ ko exécuté man maanaam du am noonu ci nga koy saafara xol nee na danaa def waa ji nangam nga ni cër yi taxaw leen li xol jàpp bu ko kenn def loolu mooy faj mi ngi amee bi kaffi jawaarixika min an taamala bi muqtada ma fi qalbik min alxasan fexeel ba bu benn cër jóg ba waa ji am lu ko naqari loolu bu yàggee iñaan tàggoo ak yow bokk na ci jàngoro yi rëy luy rëy mooy bañ dëgg xeb nit ñi dafa am lu mu nuru nag lu mu bokkut ndax ba yónnent bi ne ku lu toll ni fépp suuf ci rëy ne ci sab xool doo dem ajjana daa am ko ni ah, kaa yuhibbu rajulu an yakuna thawbuhu hasanan nit dafa bëgg mu rafet daal lu rafet mu ni ko déedéet du loolu rëy du loolu mooy bañ dëgg ak xeeb nit ñi sëñ tubaa dafa mel nañ ko laaj ne ko waaw jëw rëy moom boo ko doon xool ci biir gaañi ci biir jàngoor yi ndax moo ci gën a bon wala mu ni rëy moo ci féete kaw fal kibru a'zamu ar-rada'il jami'a li annahu yaqda'u fi diinil muti' li tax rëy gën a doy mooy moom bu ñëwee sa diine lay attaque yàqu mi ngi mel ni oto bi moteur bi bu xasee kuule moom oto bi du demati bokkut ak pneu bu toj wala pare bu nang rëy noonu la demee rëy yàqal na ku ne waaye yàqal na ki nga xam ni moom danga naan xanaa ku ko gën a jàmbaare ko ne jàmbar nga te mooy iblis iblis a ngi dafa jaamoo jaamu bay bëgg a dee te néewi teggi ne tax iblis a xëy daanu ni ko suñu borom génnee ci biiram fa innaka rajim fa innaka rajim kenn xamul lu mu daan yow sama lenn lenn lu ma lay booleti sama yërmande sama génn naa la ci iblis dundul moom yàgg mu jàpp ne la yàlla waxoon dañ na ndax suñu borom dañuy was wa rahmati wasiat kulla shay mu ni jeex na mucc na ndax kulla shay la waxte maa ngi ci al ashya suñu borom ni ko déet fa sa aktubuha lilladina yattaqun boo ko ci de kon la ko yóbbe loolu dara féetu ko ak doy war foofu suñu boroom ak a yërëm jaamam bi ak yërëm ku ko nangoo topp si nga ay jooy boo ko seetloo عذابي أصيب عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء bim naan danaa duma dafa jëfandikoo baatub dinaa usiibu la wax waaye bi muy wax yërmande nag day mel ni dani lu ma def ba noppi nga xam ne kay fi'lu mudaari' la bii fi'lu maadi la nga xam ne day mel ni wax ji day yëgle ni man kat jekk naa ci yërëm kum doon waaye nag bu dara desul lu duma moom du ma génne yar bi lu dut waaye ji def lu jar ma génne yar bi rëy moomu suñ ko leeralee ba noppi lu koy saafara saafaraam mooy nag nga xam ni yàlla nee na la alam yaku nutfatan min maniyyin tumna yow doomu aadama koo doon koo doon awwaluka nutfa wa axiruka jiifa wa fi ma bayna dalik taxmilu al fii nga tàmbalee fii nga yem diggante bi ki nga fi doon su la ko waxee ci biir mbooloo mu naqari la loolu boo ci xalaatee dellu si nag xam ni kon kat ndeke as njaama ngi boo xalaatee ci fa biisa maswal mutakabbiriin xam ni rëy amul solo boo xalaatee la la sëñ bay jaxate waxoon ni la la ngay mujje yàllaa ko xam moo xamit kanee nit la muy mujje jàppul murit ku tabbim nawet nag te góobul ba gar ba for manko doo xam la ngay am murit kenn ku def saw jiw tey ci bàq bi xam ne nawet bi dana baax dina am nangam bërigo amut kon kuy dund sa dund lu ko yàlla rafetal rafetal rafetal xamoo fuy mujj fa laysa afdala axi min axadi li lii ma tasiru fihi fii gadi ñu gàttal kooku oj bu naw jëf moom ku naw boppam rek dafa mel ni moom nee na yàlla léegi léegi baax na man moom man nga maa bàyyi nii loolu lay ci jàngoro yi la bokk moom nag saafaraam weesuwul nga xam ne ki la dàq jëf nee na lan yanjuwa ahadukum bi amali kenn mënta jëf loola tax a mucc ñu ne ko ba ci yow mu ni ba ci man illaa an yataxammadani allahu bi rahmatihi xanaa yàlla yërëm na boo xalaatee loolu loolu mën a nekk laab ju lay téye pour nga taxaw xam ne ndeke mënoo fi boo xalaatee boo jëfee ba nar sa ba nar naw sa bopp xalaat ni man maa ngi bay na ma bayna maxafatayn sama dund am na lu ci wees ma boole ca xalatu amalan salihan wa axira sayia lu baax ak lu bon te xamaguma nu yàlla def ak man ca lu baax la xamagu nu muy def ak man ca lu bon la te lii ñëw moom agseegu foofu lim laaj mooy ah kon ndekete doon bu yaafus sax xanaa ma jàppe sama bopp yaafus moo ma gën a jig ma jàpp sama bopp ci ci ci ko moom boo ñëwee ci àddina mooy kan bëgg ko ci jàngoro yi la bokk moom nag dafa mel ni danga naan liñ dal ci àddina wala boog man ak ñi ma ko sañ a wax dafa boo ko xoolee day lu doy waar ndax àddina bi ñu ko Sëriñ Tuubaa di leeral dafa topp ni baat bi ñëwee rek dan ni misaaluha ajuzatun daniya dani àddina daniya maanaam mooy jigéen goo xam ni bu góor jugoon ni day wuti soxna da koy romb jàll nga moom amul nasab amul jamaal amul maal amul nang nga xam ne moom kenn ku koo ko tax la jug du am moom na nga koy romb kay ba weesu ko jéem-jéem sottiwul nga doog cee ñëw waaye kenn ku jug di labati moom ni dañuy yëtu lay wut amut nga xam ne mbiram daa xaw suufe ba fuqaaw yi nangul nañ ko ni moom wuj eh, maanaam war mën naa am waliyun xaas bu ko mën a mayee ba noppi mu dem seeti beneen julli ni ko mayee moom la borom xel di wax ni wa sax biha fi daniyatin maa wujudi xaas loolu lépp li koy wane mooy day mel ni day ku xaw a tuuti dal léegi nag nun nunu nu àddina moom dañuy yel am kees la ba noppi nag sama classe gépp xëy di ko labat ak a wut loolu bu ñu ko tekkee lu muy firi léegi ndax kon danoo xamul kim doon wala dañ koo xam ba noppi teg ca tànk waaye foofu it jant baa ngi le mën ni su josori waaye daal nañu xam ni saafara bëgg àddina yi lu yomba yomb la na sa xel dem ci wa inna la jaa'iluuna maa alayha sa'idan juruza àddina li ko rafetal lépp yàlla ko fi jële boo fi gënoon rafetu bâtiment yi dina la wóor nii bii moom bis dana ñëw ñu ne nekkatul ci ko suuf loola ku ci xalaat mu am lu fu mu la mu am fu mu la delloo boo xalaatee ni sallallahu alayhi wa nee woon na saxaaba ya lii kum jaral ab dërëm ci yéen ñu ne ko lii ñu ne ah, kenn soxlawul fekk booba am xar mu médd la leen wax ne leen ku ko nangoo jënd ci ab dërëm ñu ni ko kenn soxla wu mu ni fa wallahi la dunya ahwanu ala allahi min hada min hada aleykum min hada aleykum gàtt bii de kenn ci yéen soxlawu ko waaye day ni ngeen ko soxlaa dee lu mu xóot xóot ni yàlla soxlaa dee addina moo ko raw loola ku ci xalaat xam nooy def ak addina sëñ Tuubaa ni nu addina boo bañee mu këf la yàq sab xol na sam xel dem ci ña la fi jiitu woon rek nasam xel dem ci ni dana jeex waaye na sam xel dem ci ña la fi jiitu woon ak lañ amoon wa aynama min al urudi jamaau mun la doo tontu nga ni cel mu ne la wayl ayni wan naami wan naami boobu xaalis ba ak alal ja ay na ñooña nga ni cel mu ne la baadu jumaa ñoom ñëpp jóge nañ fi loola ku ko xam loola mën a doon ak laab moo tax suñ bay jaxate it dama koy cité lu bari moo gaa yu baax yooyu ndax li ñuy wax day lu mat a xam daa wax ni addina boo ko dee labat doo jël te doo dese tus loo am danga nga ko jang-jange jële sa kër yët ko sa njaboot di rafle te du tax nga jël ndaw si kon ñàkka nga bi ci mujj mooy ngistal ngistal nag mooy yaa ngi wut daraja ci xoli nit ñi jaare ko fan jaare ko ci baax baaxlu wan leen jikko yu rafet ban ni waaye jii kat amul morom te fekk booba yëf yi demewut noonu gis la bopp lu suñ borom bañ la nag waaye dafa am ngi sal bu euh, diis gann ak bu ca xaw a àgg ak bu ne ci suuf bi diis gann mooy ngay ngistalee ci imaan di war a ni gëm naa yàlla te gëmoo ko kooka moom yàgg yàgg mu xalat fi naar loolu lañ ca wax sawar rek bi nga xam ne nag diis na waaye àggu ca mooy kuy ngi sale ci jaamu yàlla yi Eh, ci ci ci ni muy jaamoo yàlla lu mel ni man Cheikh gay am naa ci daaru gi ab bitig man damaa dëkk daaru am naa fi bitig waaye yoruma asaka jot mu wóor ma ne man bitig bi su ma ko yoroon moom man na maa bañ man na maa bañ a génne asaka te kenn du ko xam waaye nag gannaaw jox naa ko nit su ma génnewul asaka kooka man na maa jéebaane ni génnewuma asaka may ragal loola tax ma ne ko kon génneel asaka kon jëf jooju moom yàlla mu mutu sallallahu alayhi wa sallam ban ko mucc ci fu mu ne fii ma najaat dani mooy jaam bi jëf-jëf joo xam ne yàlla rek a tax te bañ caa dugal leneen loola it ku ko xalaat sellal jëf mën a yomb ci yow kon dañuy daane rek wax ni jikko bu kenn jàpp ni mënta soppi ko bu mënu doon soppi ko xassinu axlaaqahum sal axlaaqakum sallallahu alayhi wa du ko wax bu mënu doon soppiku doo am aw mool mu ne ci kër gi ba am ñaari at ñett xam gudd ab sareet bis ba nga koy njëkk a takku sareet moom du jaar ci aw yoon ndax jikkoom doonagut loolu waaye mën nga koo tàggat ba boo demoon ci dëkk wax seet lu guddi guddi guddi soo ko bàyyee sa ko boo ñibbisi mu jaar fa mu jaaroon ba dellu la ci kër ak jàmm loolu du woon jikkoom waaye dañ ko caa tàggat kon jikko mën naa soppi ko kon jikko boo nangoo ne mën naa soppiku ci bàyyi ma da ngay nangu ni mën naa soppiku ci doomu aadama kon nit jàpp sama jikko wër te mën na soppiku mënta day soppi ko ci bàyyi ma kon day soppi ci doomu aadama xaj mii ku bëgg ndawal la waaye mën nga koo tàggat bam dem rëbbali la te du ko laal jox la ko tàggat dong mooy tax mu la ko léegi nag ma daaneel tuuti ci xol ni mu nekkee waasita ci nga jaar ci moom jot ci njariñ wala nga làqatu fi moom mucc ci ja yonent yàlla nuux sunu borom dani fa najjaynaahu wa ahlahu illa imraatahu musal naa nuux akuk njabootam ba mu des soxnaam nuux lu ko tax a mucc astaxfira lut mooy dafa fekk lu baaxut mu ne yàlla man ko lii moom baaxut te bañ naa ko sunu borom ne ko bañ gi nga ko bañ moo tax ma musal la ci li may teg ñoo ko bañu inni la amalikum min alqaalin daani ko rabbina jini wa ahli fa najjaynaahu wa ahlahu foofu yi ñu xamante ne kon kilifa buy mucc moo ko njabootam na fekk ak njabootam ànd ak moom fam jaar yonent yàlla nuux ba mu ne sunu borom inna bini min ahli sunu borom dañu ko déedéet laysa min ahli innahu amalun ghayru salih fa mujj mooy fa kaane min al mughraqin kon ku am kilifa mu jaar ci aw yoon dangay jaar ci yoon kon da jaar ci xol bañ lëf sunu borom musal la nga jaar ci xol bëgg lëf suñu borom may la in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah bëgg nga yàlla te muy dëgg ci yow nga am njëggal ak cofeelu yàlla moo tax ñu ne aaye jooju dafa atte ñi wax ne dañoo bëgg yàlla te nekkuñ ci sharia muhammad sallallahu alayhi wa sallam lañ wax wérut ku bëgg yàlla yonent bi da ngay ànd yonent bi sallallahu waaye yàlla bëgg naa la waaye dama fi bàyyi ki nga ma joxoñ loolu bëgg ne ko fa kon Euh, ñu daaneel rek wax ni ñaari bayiti sëñ bi mu tëjee ko sëñ bi dañoo wax ni wa lafdu laa ilaha illa allahu muhammadun rasulu min mawlaahu yajmacu jumlata dihi lmacaani lida bada calaamata alimaani sëriñ bi dañoo wax ni moo ne laa ilaha illa allah muhammadu rasulullahi de lu la mën a jàngal ci lislaam boo xasee jàpp lii rek jàpp nga loolu lépp waaw boo ko xasee jàpp rek jàpp nga lépp waaw lu ma bëgg wax foofu mooy yi ñuy wax yépp na nañ delloosi si tërbiya rek na tërbiya ñëwaat nañ ko dundalaat bu boobaa jafe-jafe yi ñu am yépp yépp yépp machaakil lay yoo xam ne benn bu ñu dana am xàll boo xam ne dara des waaye li fekk nekku fii yi ñuy dund rek wala yaadu billaahi taala kon nag ah, jàpp naa ne lu ñu war a dellu la ndax sëñ bi tërbiya woon na mag ñi ba kenn ku ne pénc moom la fa yóbbu boo fa ñëwee boo te boo nee tegg bët mag ma da nga xam ni la sallallahu alayhi wa sallam ni waxoon ni balligu anni walaw aaya mooy lii dem ca pénc ma ni leen yàlla nee na dem saw yoon loolu dugg na ci balligu anni walaw aaya waaye des na de yar nit ki ba bu nekkee ci pénc mi ku ko xool donte firul ijji dana xam ni nii la ab jaam war a mel te loolu suñu doon liggéey kon tarbiya googu mooy li li mooy mooy li war a téyewaat te sàmmat ko suñu ma digal kenn nag ndax ab dong ci te bu dara sëñ Tuubaa dongab sëñ Tuubaa moom sëñ te ñàkk tarbiya ak njaboot wa minhu tarbiyatuka al awlaada li kay yanaalu baadaha rachada sëñ Tuubaa nee na moom kenn ku eh, eh, saña ñàkk saña ñàkk yar sa njaboot ëm boo ko defee na la wóor ne ñaawal nga teggeel sa diggante sa borom te it xañ nga gone gi loo xam ni euh, bu ëllëgee sa borom ate la ca kon mm, rek euh, juróomi bay di ma leen nokkeele ndax sa xamante naa ko ak ak ak ñaari bayit sañ bay jaxate waaw jàppal sa xol bii defar ngir xol bi moo di sa kër defar sa kër bàyyi sa xol moo lu muy xala faj ndegam dangaa bëgg a am wéttal wudul xala dañ tijjil sa xol bi la yow te tijjil sa xol bi la yow tàbbal ci yàlla te tëj yàlla nu sa may loolu kon euh, juróom bayit donga rek euh, yoo xam ni euh, ngir ndokkeel leen ak ak ak rek di di wax ni euh, lii moom du sama euh, euh, waaw lii du sama mbir xëy na rek waaw lii du sama mbir du lu may def kon muassasatul wafa fi kulli aami tuqaddimu darsaha shahra siyaami bi hada darsi qad zaharat maani laha aqsa maaqila fi lmawaami fa bada al ibtida fa bada al ibtida amalun muqirrun laha ajran ila yawmi alqiyaami bi idnillahi yabqa darsu nuuran yuamminu min sucubaati alzalaami tamaala'a ahluha wal ahlu ahlun ala ixya turaatin di maqaami maa ngi jégalu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu Cheikh Gaye ci waxtaan wu am solo bii nga xamante ne moom nga ñu baaxee tey te mu jëm ci wàllu xol te nga leeral ci ak leeral goo xamante ne képp koo xamante ne teewlu nga jataay bi tey yaakaar naa saxol sedd na ci guyu jëre nga ci tamit ay bind yoo xamante ne incha allah boo ko jëfee dana la jëriñ fii ak fa ñu jëm kon ci turu mu fa wafa bi xuquuqul iman ñi ngi ñaan yàlla yàlla fay la ci coono yi nga xamante ne moom nga jànkonteel ngir baaxee ñu lii nga xamante ne moom la yàlla baaxe yàlla na ko yàlla làq fu yàq yëgut yàlla na yàlla uh, guddal fan wi te yokk xam-xam bi uh, waar wi nga xamante ne ci nga yëngatu tamit te bàyyi ak maam yi nekkoon ci bàyyee la ko yàlla bu mu booy ci say loxo yàlla bu mu booy ci suñu loxo kon ñu fàttali mbokk yi rek ne incha allah suba ci dibeer ji fas yéene nañoo dalal sëriñ Abdoulahi Diop Ndar mu fas yéene ànd ak ñun ci azarul mazhabil maliki yi fii waxdatil mujtamaa sénégal yi muy jeexital bi nga xamante ne ngirum imam malik def na ko ci bennale njabootu sénégal kon incha allah kooku la ñu fas yéene dalal muy sëriñ Abdoulahi Diop bu subaa ci dibéer ji incha allah xam naa ne rek ñu baaxe mbokk yi rajo yi nga xamante ne ñooy jàllale waxtaan yi Euh, te mooy Darou Moukhty FM incha allah moom mubasharatan la moom en direct la koy def moom ñaaxeen FM. ba tey tamit euh, ci internet bi ku dugg ci Touba Vision ci YouTube bi rek man ngaa ànd ak ñun en direct ci biir waxtaan bii nga xamante ne moom lañuy def. Euh, ba tey bokk na ci rajo yi jàllale waxtaan wi Benno FM moom 17h Lamfal FM ak RFM RTS Touba 22h la koy jàllale 22h30 Sud Sud FM Walf FM. Zik FM moom vingt et Jant bi FM euh, Lamp Fall FM bu dakaar ba tey ICAP muy université Cheikh Ahmad Bamba FM Touba bu dee ci télévision yi Mourchid TV yi ak Touba TV yi ak Lamp Fall TV yi euh, yooyu danañ jàllale waxtaan yi nga xamante ne moom la ñu amal fii ci jotaay bi ba tey tamit encore ci biir internet bi rek Bawal Média lu ci dugg rek incha allah. da nga mën a ànd ak ñun ci jataay yi nga xamante ne moom la ñuy amal ci béréb bi nii kon ñu dellu santaan rek santaat suñu borom subhanahu wa taala mi nga xamante ne moo ñu may ñu fekkewaat euh, weeru koor bi di ko ñaan mu may ñu ñu àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu